kaza mukarrarun dégg nga naka noonu masdar mu ñu takraar masdar mu ñu takraar darban darban kooku kon kenn du andi amil jaati di ca boole lu dëgg masdar mu ñu takraar pour feddali kon nag boo nee idrib darban man nga ko boole waaye soo nee darban darban dootoo andi idrib darban darban ñett fi noonu dégg nga wazo xasrin ak masdar moo xam ne dafa nekk maxsuur fii boroom xasru boo xam ne war a da dikk na naaiba fiilin di remplacer fiil joo xam ne istanada dafa weesu weeru woon lismi aynin ci ismu ayn mubtadama ismu ayn la dégg nga aywa masdar maxsuur bi nag moo remplacer fiil ja ni ki ma zaydun illa sayran sayran illaa sayran illaa yasiiru sayran wala innama zaydun dégg nga maanaam bu fekkee masdar mi dafa takraar wala ñu muy maxsuur te dafa remplacer fiil yoo xam ne xabaru mubtada la woon ni ki zaydun sayran sayran kon yasiiru dootoo ko andi zaydun mooy ismu ayni bi nga xam ne mubtada la xabaram moo doon yasiiru sayran nga takraar sayran nag pour di teg kon yasiiru janna dañ nga ni saydun sayran sayran wala mu nekk maxsuur ni ki innama saydun sayran dégg nga fa inna taqdira saydun yasiiru sayran wa ma saydun illa yasiiru sayran wa innama saydun yasiiru sayran moo tax nga ni kon dootoo andi masdar moomu dégg nga kaza mukarrarun wa zu xasrin warada dikk na di ramp naay ba fiil di remplacer fiil joo xam ne dafa wéeru woon ci ismul ayn ni ki zaydun wa minhu am na ci masdar fu ñuy war a xasafi amilam faw maa yadaunahu masdar mu ñuy tudde mu akkidan li nafsihi wala mu akkidan li gayrihi mu akkid li nafsihi mu akkid li gayrihi dégg nga fal mubtada bi ñu tàmbalee te mooy mu akkid li nafsihi misaalam naxwu boo nee lahoo ñeel na diw alayya war ma alfun junniy dërëm orfan ci ci reconnaître maanaam ma di ko atarifuhoo orfan bi maanaa itiraafan kon orfan jooju mu akkit li nafsihi la ah orfu bi maanaa li itiraaf itiraaf mooy lan nangu naa ni maa def nangam wala nangu naa ni nangam war na ma du loolu la ñuy wax di itarafa maanaam miimul su ko defee kon lahoo alayya arf alfun diw day ab junneem a ngi war ci sama baat loolu du litiraaf kon soo neetee itiraafan ñu tudde ko mu akkit li nafsi ndax litiraaf mooy nafsu lahoo alayya arfun loolu mooy nafsu litiraaf du dëgg mooy mooy jëmmu litiraaf maanaam ñàkk a miin reconnaître ñàkk a miin loolu la ñuy wax litiraaf kon soo nee diw yoral naa ko junni loolu litiraaf la soo nee nag itiraafan kon masdar mi dafa fedd li nafsi ah moo itiraafan mooy bi maanaa urfan urfan kooku maanaa kon ma ngi mel ni xuslan maanaa ismu masdar la bi maanaa itiraafan kon urfan daal dafa fedd li lahu alayya moo tax kon atarifu itiraafan kenn dootu indi fiil jooju atarifu noo ngi wax ci fu ñu war a asafi amilu masdar du dëgg au lieu nga naan lahoo alayya alfun atarifuhu itiraafan déedéet so comme nee nga lahoo alayya alfun urfan atarifu ji ko war a nasab day fa xasafu faw faw ndax moom mooy mu akkidun la li nafsihi li anna maanaa lahoo alayya arfun mooy maanaa li itiraaf dégg nga loolu wasaani ñaareel ba mooy mu akkidan li xayrihi du dafa ni woon maa yu yu ñuy tuddee mu akkid li nafsihi aw mu akkid li xayrihi mu akkid li xayrihi nag mooy misaalam ibni anta yow ibni sama doom nga xaqan ceeg dëgg sirfan guddi aji sell anta ibni xaqan xaqan jooju masdar mu ñu war a xadaf aamilam la ay axuquhu saxal naa ko xaqan ak saxal dëgëral naa ko ak dëgëral a xoquhoo dañu koy xadaf ndax xaqan masdar la moo xam ne dafa feddali li gayrihi li gayrihi mooy lan anta ibni yaxtamilul xaqiqata du dëgg wa yaxtamilul majaaz du dëgg yow sama doom nga kooku dafa jamtalu ni xaqiqa la da nga ko wax koo jur mën na am itam taqrib nga jublu ku baax ci yow wala sa doom ba eh yow sama doom nga antab nii du kon ah lëf nag bu jamtaloo leneen bokkut ak la nga xam ni moom jamtaluwul lu leen lahu alayya arfun itiraaf dong la jamtalu kon soo nee itiraafan ah atarifu hooja ko waroon nasaf moom na dem waaye yow sama doom nga yaxtamilul xaqa wa yaxtamilul majaaz ah waa kon nag xaqan fii mu ne mu akkidun li xayrihi ndaxte ibni anta yaxtamilul xaq yaxtamilu xayrahu amaa baatu xaq nag laa yaxtamilu illa al xaq kon bokkut ak kii koy looloo tax ñu tudde ko mu akkid li xayrihi kon ñu moom it ñu war a xasaf amilam nga ni ko anta ibni xaqan axuquhu xaqan ñu ne axuquhu xaqan bu mu dikk li anna xaqan mu akkidun li xayrihi orfan nag mu akkidun li nafsihi ndaxte lahu alaya alfun laa yaxtamilu illa li itiraaf an tabni nag yaxtamilu xaqan wa yaxtamilu majaasan kon nag fa huwa xayruhu sirfan ji nag moom mottali way la sirfan ju di aji seetlu bokkul ci misaal yi ka noonu lu tashbihi masdar moo xam ne ak niralee ko tax a jóg baada jumlatin boo xam ne làmb na làmboo na ala faailil masdar ni ki lii ñeel na ma bu kaan ay jooy nga au lieu nga naan ab kii may jooy bu kaa azati adlatin comme jooyu boroom musiba musiba adlatu daahiya ah lii bu kan may dama dama ñeel na ma ak jooy bu kaa azati adla rek lay wax waaye ab kii bu kaa dootuñu andi ab kii ndax masdar mi li tës bi sa jooy yi ngay niir léegi jooy yi jigéen ju am musiba dal yàlla tere bu kaa zaati adlatin ay zaati daahiyatin aywa su ko defee masdar mi dawlu na te ñu sart baat fokk mu làmboog faayilu masdar bi ni ki damiru mutakallim bi ci lii ñeel na ma maanaa ab kii may jooy man lii ñeel na ma damiru mutakallim ab kii ana ji mu doon na bu mooy mutakallim boobu kon jumla ja làmboo woon na faayilu masdar bi ab kii bu kaa zaati adalatin kookoo tam ab kii ja dañu koy xalaf faw faw faw dégg nga ajo nga seet ajo nga yor foofu dara ci sara wala nga dem naan baada jumla lan wax su ko jumla dawul woon xanaa masdar kon nag waxal fa law lam yakun wajaba rafu sawtuhu sawtu ximaarin bukaauhu bukaau zaati adalatin kon loolu wala bukaau sakla ku jërmeel ku amatul doom fan la yansibu maf yunsabu mafulan lahu almasdaru in abaana taclilan kajud shukran wa din wa huwa bima yacmalu fihi muttaxid waqtan wa faacilan wa in shartan fuqid fajrurhu bilxarfi wa laysa yamtani yan yi naan fajrurhu billaami mooy nusxa bi ma xamoon yow bilxarfi nga def bilxarfi la kii def waaw waaye damaa xamoon nusxa fajrurhu billaami wa laysa yamtani waaye nag bilxarfi wax na dëgg ndax minute mën na ko kon comme minute mën na ko bilxarfi moo gën xëy na wa laysa yamtani maa shuruti ka li zuhdin zaqani léegi daal mafoolu lahoo dafa junj ay xud ay sartam mafoolu lahoo nag liñ ci li mu ci junj ci ay sart moo ni moom masdar lay doon dëgg qalbi yu lay doon muttaxid lay doon ak faayilam maanaam ay bennoog faayilam ci waxtu bennoog moom ci faayil ñeent sart yi mooy tax mu dagana nasab bu ci dara dàqoo du dagana nasab xanaa nay masdar masdar la nay qalbiyu maanaam bu muy jëfi loxo ni ci darab waaye zanantu jortu naag alimtu xam naag raxibtu xemeem naag yooyu la ko nay feelu qalb na bokk ak amilam waxtu nañu bokk faayil kooku bu loolu mooy tax ma ne sa nasab maf'ul lahu du dëgg amma bu ci benn sart dañee te nga bëgg mu nekk illa ci amil ja ba tey kon da ngay indi xarfu taalil ni ki laam ni ki nga ne qumtu darban li amrin ah wala waaw bu dee fu min mën a dem ni ki jiitu min raxbati kaza ni ki min xasiyatillahi ah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأي خاشعا متصدعا من خشية الله فوفو جرنا يكون من كوكو نك دانا لني وليس يمتنع مع الشروط بشرط يمتين بلا نخي جرك حرف تعليل قاع واي نسب جلاني لكوي تخا دغان شرط مت سو شرط متى نسب جي دون واجب مك داي دون جائز بلا دون جائز شرط مت bu sart yi manqué nasab gi du dagan kon nag dara desu fa lu dul jarak xaraf loolu waaye sart yi mooy nay masdar su dul masdar jarak te nga bëgg mu doon illa nee na kon da nga koy jarak xarfu taalil loolu tax ñu jar koog laam ci fi qawlihi taala wal arda wadaaha lilanaami surtout anaamu bi maanaal xalq du masdar ismu jaamid la bi nga bëggee mu doon illay wadul ardi jar nga jar nañu koog laam maanaam wal arda wadaaha yàlla moo ko def lil anaami ñeel mbindee bi du da ngir mbindee bi ah kon anaamu du masdar mënuñu ko nasab dañ koy jarag laam su dee masdar te du qalbi dañu koy jarag laam soo ni woon jiitu dikk naa pour lan li dar bi saydin dar bu saydin mooy illa ji la tax a ñëw ah kon kenn du ko mënul nasab nasabu maf'ul lahu naan jiitu darban li zaydin ndax darba masdar la waaye du qalbi yu jëfu loxo la wat wute naag yow mu ni jiitu xubban li zaydin du dëgg xubb du jëfu xol kon mën nga koo nasab nga xam ni kon wax nanu ni li dul masdar ni ki li laa naam dañu koy xala jarak xaraf su fekkee masdar la waaye du qalbi yu ni ki li darbi zaydin da nga koy jarak xaraf waaye doo ko mën a nasab su dee masdar di qalbi yu te bokkuñu waxtu moog aamilam da nga koy jar ak xaraf waaye doo ko kii looloo tax nee ñu ñu jar ko ci ba imrul ci waxu imrul qays fa jitu wa qad nadat li nawmin siyaabaha seetoo li nawmin nawmu bu la neexee sax ni waaye yéen itam nag nawmu jëfi bët la du jëfi xol ñun la ah kay ndax ibtidaa u nawmi fil qalbi xamuloo xolay jëkk nelaw bët door a gëm du dëgg kon nelaw jëfi xol la ca la déparé waaye nag masdar la qalbi yu la waaye dafa bokkul ak faayil ji waxtu ndax kii summiku nekkagul di nelaw du dëgg kon dégg nga amil ji dafa jiitu ci jamono summi gi nadat summi na mooy fiil ji nasab masdar mi dafa jiitu ci jamono masdar mi nit ki day summi ku tëdd door a nelaw kooku moo tax mënoo ni nadat si yaa baxaa naw man ngir nelaw ah déedéet bi muy summi sér yi nelaw yi amagut wa bu ñu bo bu fekkee masdar la di xal bi yu ñu bokk waxtoot beneen sart bi ko ñeenteel mooy nañu bokk faayil ah fiil ji nasab masdar mi ak masdar mi nañu bokk faayil ju ko def wa illaa dañu koy jar ak xaraf soo bëggee mu nekk illa niki wa inni la taaruni li dikraaki hizzatun kaman tafada al usfuru balla lahu alqatru la taaruni dana ma yëngatu dana ma gaar li dikraaki ngir sama fàttaliku gi ma la fàttaliku dikraa mooy masdar mi qalbi yu la fàttaliku ci xol la ne ñoo bokk waxtu itam ndax bi muy yëngatu yëngatu bi mënatul téye boppam mooy tàng bi mu fàttalikoo ndaw soosu du dëgg waaye bokkuñu faayil dikra ana masdaram mutakallim bi ngir fàttaliku gi ma la fàttaliku man man maay faayilu fàttaliku waaw hizzatu nag mooy faayilu taaroni ji fiil ji amil bi taaroni mooy fiil ji ana faayilam hizzatun dikra mooy masdar bi ana faayilam damir mutakallim bi nga xam ni dafa mel ni dafa ni dikri iyaak xanaa kon bokkuñu faayil looloo waral dañ koo war a jarak laam pour yi ponk loolu la ngay jàng ci yax bi léegi xamuloo ñeenti ponk yi nay masdar nay xalbi yu na bokk ak amilam waxtu nañu bokk faayil su ci benn manqué jarak xarafu taalil nga koy def pour mu nekk ca illa waaye dootoo ko mën nasab su yëpp matee nag dagan na nga nasab déggal li ma wax nasab gi du doon waajib mukk moom waaye dana dagan nag bu boobaa du dëgg waaye nag ci biir dagan gi su la neexee bañ ko def nag jarak xaraf kooku du terewu mukk waaye nag na nga xam ni ci biir dagan googu léeg-léeg nag nasab gi doon nga rey rafet jarak xaraf gi rafetut léeg-léeg jarak xaraf gi rasab nasab gi rafetut léeg-léeg ñu yem képp yooyu yett nag mu ngi ci biir kañ la jarak xaraf gi di war su fekkee sart yi mat na di rafet waaw kañ la jarak xaraf gi di rafet jarab xaraf gi fa muy war a fe ware mooy bu sart yi manqué mooy ñeenti misaal yi nu passé woon amaa fa muy rafete nag mooy su fekkee ni dafa masdar mi dafa dafa yor al alif ak laam niki tey am na fu ñu ko defee te ñaaw na laa aqudul jubna anil hayjaa i bayta la ci ibnu malik walaw tama nee na ibnu malik ne wa anshadu laa aqudul jubna anil hayjaa i walaw tawalat zumarul aadaa i laa aqudu duma toog anil hayjaa i walis xare ju al jubna ngir ragal rafetul nasab gi jubna mastar la qalbi yu la bokk naag amilam waxtoog faayil waaye li mu yor al tax na jarak xarafa ca rafetoon nag nasab ah kooku de Ibnu Malik boo ko indi ci yax bi rek waxul sax boroomam kan xurab xurayb bubnu unays xurayd waaw xurayt xurayt bubnu unays waaw nee na moo wax ni laa aqudul jubna anil hayjaa'i léegi nasab googu dagan na moo tax kooku jëfandikoo na ko arab bi bu wér la waaye de li rafetoon gannaaw dafa am al mu ni lil jubni laa aqudu anil xarbi lil jubni looloo gën a rafet nga naan laa aqudu anil xarbi al jubna du dëgg sannul igaarata fursaanan wa rukbaana baytu xamaasa ah laakin laakinna qawmi walaw kaanu zawi adadin laysu min alcharri fi cheyin wa inhaana yaa laytani bihimu qawmun ida rakibuu sannu ligaarata fursaanan wa rukbaana sannu fursaanan wa rukbaanan lil igaarati moo gënoon a rafet ndax li mu yor al aywa bi nga xamee ni nag itam jar gi ah dagan na waaye nasab gee ko gën mooy su fekkee ne munakkar la yorul allaaful kon ki wax fële ni man amakum li raghbatin fiikum zafir wa man takunu nasirihi yantasir jaram googu dagan na wax dëgg waaye nasaba gënoon nag la gënoon mu rafet mu ni mu ni dégg nga man amakum raghbatan fiikum intasar waaw kay man amakum raghbatan fiikum moo gën waaye mu ni man amakum li raxbatin fiikum dagan na nag ndax sart yi mat na dégg nga aywa su fekkee ne nag dafa laaf ah kooku nag yëpp a yam nasab gi rafet jar gi rafet moo tax yooyu yaar yëpp am ci alquran du dëgg wala taakulu wala taqtulu amwaalakum xasiyata imlaaqin isoo ni mu nasabe xasiyata xasiyatu feelu xol la ragal dégg nga sartam yi mat na waaye dafa laaf kon nasab gi rafet na soo ko jaree xarafit mu rafet law anzalna hada alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an ngir lan min xasiyatillaahi su noon xasiyatallaahi it ñooyam du dëgg su noon xasiyatallaahi comme xasiyata imlaaqan mu rafet min xasiyatillaahi mu rafet su laafee moom yëpp a yam su yoree al jar gi xaraf doo nga baax su dee nak su dee nakira nasab gi rek a baax la ca des baax na dagan na waaye rafetu loolu nag mooy atte bunt bi mu jeex tàkk yun sabu dañuy nasab al masdaru masdar mafulan lahu muy maful lahu benn tur la da nga ko wax maful li ajlihi beneen la da nga ko wax maful min ajlihi am na ñetti tur masdar in abaana su fekkee masdar ma dafa tegtale biral dafa tegtale taalilan illaal amil ja day fekk mu nekk illa ci amil ja nangam moo tax ma def def naa nangam ngir nangam loolu lay doon dégg nga niki jut tabeel shukran ngir sant yàlla waddin maanaa mën na daana yadiinu mën na firi leb na bor dégg nga leble na wala leb leb na din min daana yadiinu su jut waddin shukran وهو من بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وهو موم مصدر ميغا خانن غناو بومو نيكي مصدر نينا لا ناي قلبي يونك نيكي شكر موم متحدون كو بنو لا بما يعمل فيه اك عامل جي جف تي موم فوك ني بوك بنو تي وقت تي وقت وفاعلا بوك ني بوكيت فاعل لولو موي شرطي masdar la xalbi yu la dong la tuddul fii dafa doyloo misaal yi xalbi yu nag ci la nay masdar na nay jëfi xol na bokk ak faayil ja waxtu nañu bokk faayil wa in fuqida bu ñu ñàkkee sartun benn sart ci ñeent yi kon fajruruhu bil xarfi na nga ko jarak xaraf du dëgg walay sa yamtani u moo na nag jargee xaraf moom du terewu maa tamaami shuruut yi comme waxaan naa la ko su sart yi matee du tee jarak xaraf gi dagan na mutlaqan waaye léeg-léeg mu gën a rafet léeg-léeg mu gën a ñaaw léeg-léeg mu yem niki masalan kaza xani a doylu na li zuhdin ngir ñàkk bëgg àddina comme comme misaalam bi waxoon ni xani a zuhdan moo gën a rafet waaye mën nga ni li zuhdin kii dafa la wax ni jar nañ ko xaraf te ay sartam mat na walay sa yamtaniu jar bil xarf maa tamaami shurut niki za qani'a li zuhdin mënoon nga ne za qani'a zuhdan zuhd masdar la qalbi yu la moog qani'a bi ñoo bokk waxtu bokk faayil dégg nga nee na nag wa qalla néew na an yasxabahaa di ànd ak alji al mujarradu min al wal idaafa kooku àndam ak al ñaaw ga tax na barewut dégg nga niki tey man amakum li ragbatin fiikum zafir xam nga ni kooku taxu koo rafet moo tax néew na wala ak su safaan ba fii masxu bi al moo nekk ci lu ñu booleeg al kooku moom jarak araf rekk a ca rafet li ñaaw ci mujarrad bi moo rafet ci masxu bu al mooy wala ak su safaanu loolu fil maxsu bi al waaye nag wa anshadu sadd nañ ca way bii laa aqudul jubna anil hayjaa'i walaw tawaalat zumarul aadaay laa aqudu duma toog aljub na ngirug ragal laa aqudu anil hayjaa i walis bañ dem ci xale aljub na ngir ragal kooku lil jub ne rafetoon walaw tawaalat su yëg boon topp toftaloo zumarul aadaay mboolooy noonu ya xajaral mawti xam nga kooku dafa laaf aywa kooku kon nasab gi rafet na jarak xaraf rafet na ci alkarimi digaarahu wa aridu an shatmi laimi takarruma iddixaarahu yaa ngi ko nasab ma ngi laaf kale almafulu fii ku ko doon firi ci loxo da nga naan lu ñu def ci biiram wa zarfu kadalika zaraf fi'l ji kon nasab dafa dugg ci biir dana ne wax fan sibhu bil waaqi fii wa bil waaqi fii zaraf al yawma fiil ji kon nasab te moom su yeboo lazim la su yeboo mutaaddi la dañu daan wax ni maf'ul yaar la maf'ul mutlaq fiil ju nekk mën na ko nasab lazim ak mutaaddi darabtu darba nag jalastu juloosan ñooyam benn ba mooy maf'ul muqayyad kooku nag yent la maf'ul fiihi mooy zarf maf'ul bihi maf'ul lahu maf'ul ma'ahu yooyu mooy mafaa'ilul muqayyada maf'ul fiihi nag mooy zarf maf'ul bihi moom fi'lul mutaaddi doon nga ko mën a nasab waaye mba mboolem mafaa'il yent mutlaq baag yi ak yet ak yetti muqayyad yi ñooyu yëpp fi'l lu laazim ak mutaaddi yam ci ñoom zaraf ni nga naan darabtu al yawma noonu ngay waxee numtu al yawma yëpp ko mën na wa huwa al musamma zarfan ndax zarf ëmbukaay lay doon li dara di nekk ci biiram ah su ko defee jëf dana am jamono ju ko ëmb dana am place bu ko ëmb moo tax ñu wax zarfu zaman ak zarfu makaan anil jëta bi ci biir moo leen di nasab ak zarfu waqtun maanaa turu jamono lay doon aw makaanun wala muy makaan bu dee zarf makaan dummina yoo xam ne dañu leen a làmbale dañu leen a ëmbal fii maanaam fii soo ne sumtul yawma dafa mel da nga ne sumtu fil yawmi soo ne darabtu al yawma dafa mel da nga ne darabtu fil yawmi soo ne darabtu inda saydin daga dafa mel ni da nga ni fii dalika al makaan bitiraadin ci fekk xiyaasuk taaddi saairil awaamili ilay na qiyaasu nag amil yëpp man man koo nasab laazim ak mutaaddi loolu lu tax mu ni bittiraat su fekkee ni dañu ko làmbal makkaan la bu ñu làmbal fii nasab koot waaye lam yettarit dalika nasb ndax loolu du jéggee ni amil bu ne ay amil xaas rekk lañu ko jox kooku kon duñu ko wax mukk zaraf kooku benn nga ni dañu ko nasab tashbihan bil mafuuli bihi te moom du mafuuli bihi bi zaraf wala boog sax dañ ko nasab bi isqaatil xaafid ni ki tey daxaltul daxaltu daara ak sakantu al bayta daara ak bayta ismu makkaan lañ ñan ko nasab dégg nga te làmboona maanaam fii ci daxaltu ak sakantu ndax da nga sakantu fil bayta la waaye nag laa yattaridu taaddi saairil awaamili ilayhi looloo tax su doon zaraf nga mën ne darabtu al bayta wala darabtu ad daara wala numtu al bayta wala numtu ad daara ni nga mën a ni darabtu huna numtu huna du dëgg darabtu inda saydin numtu inda sa kon inda zarfu makaan la ndax mboolem awaamil yi mën na ko mën na ko nasab du dëgg kon nag loo tax mu ni balay doon bala ñu koy tuddee zaraf ci istilaaxu naxwu bitiraadi taaddi saairi l awaamili ilay ci qiyaasu mboolem amil mën ko nasab ka huna um ku saxal huna fii azmunan ay jamono huna zarfu makaan la doon ismul isaara la d' accord looluy tamyiisam ci cosaan waaye nag bi ci amil duggee moo ko def zarfu makaan nasab gi nasabu dégg doon gi mu doon ismul isaara yorul liraab yi lu ko jox place su nasab bi amil ji ci dugg um ko saxal huna fii makaan azmunan ay tang zaman huna ak azmunan jamu zamanin zarfu makaan lay li ko nasab mooy um ko saxal fansibhu nasabal zaraf zamanan wala makaanan bil bil waaqi ca la ca tabbi bil al jooju xam nga ni ismu mawsul la sifatul sariha bi waaqi mooy si la maanaam dafa ni bi al ay bil aamili alladi waaqiun huwa fii nasab ko bil waaqii fii ca la ca tabbi fiil ak lu yor maanaam fiil la xal doon bu yeboo muzharan lu ñu feeñal kaana la doon moom la ko nasab wa illaa boo ko fa bu fa feeñul fan wixii nattale ko fa yéene ko fa muqaddaran muy lu ñu nattale niki jalastu huna darabtu huna bu la bu ñu la neen waaw yow ay na darabtu am si fan nga dóore nga ni huna kon fekkoo fa la nasab huna waaye yaa ngi ko fay nattale ndax ña ngi ko déggee ci ay na darabtu am si nga ni huna ay darabtu huna du dëgg moo tax lu ko nasab la ca tabbi ni ki darabtu huna darabtu al yawma kaana muzharan dégg nga moo xam wa illaa mbaa bu feeñul fan wii yéene ko fa muqaddaran muy lu ñu nattale rek dégg nga wa kullu waqtin qaabilun zaaka wa maa yaqbaluhu almakaanu illaa mubhama نحو الجهات والمقادير وما سيغ من الفعل كمرما من رمى وكل وقت بيب اسم الز- وقت اسم الزمان بني قابل أجي ننقل ذاك لولو nasab googu ngir amil ji ca tabbi ismul waxtu bu ne mën na ko dégg nga su yaboo mubham la wala du mubham mubham ni ki xiin mën nga ni surtout xiinan ab tàng loolu mubham la xameesul fu mu dale xameesul fu mu yem lu dëgg bu dee ismul waxti kullu waxtin